Euh, Señaar euh, Asma Khadija Linguère Yacine def nañu fi Linguère yaa xam ni ngay dee euh, Simon le sage de la maison. très pertinent Mamadou Fofana la incontournable Fabrice Nguema nuyu naa leen di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool. am benn message boo xam ne nag il paraît que tey moom moom. vous êtes très élégante ce matin xam naa yéen ñaar ak moom. en tout cas merci beaucoup alors admirateur. secret ah. oui. secret. très bien en tout cas. lan moo tax ma yóbbante. admirateur ou contemplateur du bout. Mamadou Fofana ku mi ngi noonu ñu dellu siwaat rek ci waxtaan wi amee dëgg la kat euh, euh, la migration irrégulière Fabrice Nguema euh, en 48 heures titre le quotidien 1000 candidats interceptés à qui devons-nous nous adresser justement pour ah, ba léegi j'ai dit la même chose tant mm-hmm. qu'on ne discute pas pour essayer de comprendre ces tant qu'on n'a pas on a on ne s'adresse pas à ces gens on ne saura pas quel est le problème taal leen seen télé yi indil leen wax indil leen sëriñ appelez tout ce que vous voulez les moralisateurs décrypter les messages essayer de dire que ce n'est pas bien mhm. mais ñoom ñoom cette témérité là parce que yow tu sais que non yaa ngi dem tu vas mourir mhm. tu es sûr à au moins 90% que tu, es, tu vas mourir. Mm -hmm. 10%, tu peux être sauvé. Mhm. la mort. Faut vous un problème. Mm -hmm. On revient encore à un sujet, les mêmes sujets, c'est-à-dire mhm. les questions les questions de travail. ñii mm-hmm. si ils font ça c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Mm-hmm. bon d'accord on va dire oui mën nga jaay café Touba sa buntu kër am as tuut rek lijjanti li ngay lijjanti mais non il y a aussi ce qu'on appelle les les les les comment ça s'appelle les les les les pesanteurs. Mm-hmm. au plan familial il y en a. il y en a euh, si. pression sociale mais bien entendu mais mais xoolal tu vas voir quelqu'un qui a réussi dans sa vie qui veut fonder une famille. mais moom il n'a pas le droit de quitter sa maison familiale parce que on lui reproche de vouloir le faire au moment où il a un meilleur quand c'était compliqué il était là donc il y a beaucoup de réalités c'est des réalités il faut voir tout ça Mhm. C'est pour ça que je dis il faut l'implication des psychosociologues, mhm. des, mais, mais, des anthropologues aussi, mhm. des gens qui vont peut-être réfléchir et comprendre le phénomène. Mais tant que les gens qui aillent programme, projet, affaires yooyu, politisés ou non politisés, loolu yëpp ça ne va pas régler le problème. En tout cas, vraiment je ne souhaite pas que parce que c'est pas gay. Un jeune et il y a encore un truc grave, c'est-à-dire aujourd'hui mais c'est un autre phénomène. Ces jeunes-là, c'est des jeune Donc c'est de la main-d'œuvre. Mm-hmm. C'est de la main-d'œuvre. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un pays qui est en train de se vider de sa main-d'œuvre. Alors qu'on a besoin de ces gens-là pour travailler. C'est ça. Et je rappelle souvent que les retraités d'aujourd'hui sont payés par nous. Mm-hmm. Et nous, quand on sera retraité, on sera payé par nos, euh, ceux qui vont travailler demain. C'est comme ça, c'est une chaîne. On est en train de nous vider de notre main-d'œuvre. Et ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir, dont il va falloir réfléchir et trouver des solutions. Maintenant, si tu condamnes, tu dénonces, est-ce que ça règle le problème? En tout cas. le problème peine à se euh, régler maman. Ah, comme ni dina dina jafe dina jafe régler nag. parce que euh, je pense que dépassé na sax léegi mbirum état. que état quoi qu'on dise ah. mi ngi def lu mu mën benn ñaar ñaata gaal la ñu téye yu nga xam ne dañu doon bëkki marine nationale je pense que duñ toog ñaari fan yu nga xam ne nee nañu téye nañu gaal bu nga xam ne dañu doon dañu mën doon bëkki ñu téye leen kon état mi ngi def lu mu mën lii tax ñuy dem mënatoo jël ne ñàkkum xëy la parce que da ngay gis ku am xëyam am saleeram bàyyi ko fi wala nga am sa boutique jaay ko ne da bëkki mm-hmm. donc mënatoo wax côté boobu ne loolu la c'est vrai que na ñoo xam ne na peut-être danga naan par exemple Bougane mu ko doon wax boo demee sa face booy nappakat yi gisutuñu jën ah. bu ñu napp d'accord foofu d'accord naa parce que nag bu ñu demee ba géej gi as néew lu ñu am si ab jën ay contrat signé nañu ko ak ay bateau étranger ñu yulli ko gaal bu ñu mënatul gis jën dinañ gis ay nit yëpp leen yóbbu leen donc ngir nga xeex ko faaw nga sensibiliser waajur yi ndax waajur yi si boppam di nga gis ku teggi na tam jox doomam pour demal xam na kon kooku euh, du moom mooy dem naan ah bu leen dem waaj am na say waajur nga xam ne ñoo tegg seen nag wala jaay seen or ngir seen doom dem xam nga pour pour pour nga xeex ko il faut nga jël loolu yëpp en compte impliqué association yi ASC yi parce que nawetaan yi loolu da ci am solo impliqué leen ci bàjjanu gox yi ñoom ñëpp ngi impliqué leen si ngir ñu mën a ñaax ndaw ñi ngir ñu toog fi am na ñoo xam ne li may wax ni dañ naan waaye suba bu ñu gisee gaal dañuy dem parce que nit ñaa ngi dee ñoom gis nañ ne ñaa ngi dee mais terewul ñu ngi dem te ni mu nekkee fii ci Sénégal noonu la nekkee ci yeneen si euh, euh, sous région bi am na ñoo xam ne foofu la ñuy jógee Mali Burkina ñëw fii Sénégal ngir mën fee yéege dem donc ñun ni ñu koy dundee noonu la ko yeneen dëkk yi di dundee parce que da ngay gis fii saa bu ñu jàppee gaal marine nationale bu jàppee du ay sénégalais rek ñoo ci ne am na yeneen nationalité yi ci ne ñoom it dañ la ñuy ñoom ñoo ko xam ngir mën a dem te pourtant nag ñoom xam nañ ne Europe ba woon du léegi mm-hmm. ña nga nekk sa mbedd ma ci di di fanaan ci mbedd yi ña nga fay nekk di toltolaa bi am na ñoo xam ne ba ñu yeggee sax seen xel dem na parce que li ñu dund moo tax et pourtant te réew dañuy dem ba tey donc solution bi dana jafe lool dana jafe lool ngir ngir gis ko mën a arrêté mbëkkan yi. merci beaucoup F24 déterre sa hache de guerre Simon Faye ñoom dañuy amal dëgmal marche le vendredi bi ñuy euh, dëgmal après demain ngir rek wax président Macky Sall détenu politique yi des sa prison ba ñoom nañ leen génne waaye tamit élection présidentielle yi ñuy jubal nii na inclusive na si ñëpp mën a bokk. xam nga F24 yenn saa yi ñu dem ba fàtte leen sax. F24 mere nañ la. non mais F24 yenn leen di fàtte. et je pense que stratégie bii ñu teg mooy. bu leen ñu fàtte. fàttali waaw ñoo ngi nii sóoraale leen. communication parce que. non si bon ana ana F24 nga yàpp ah. S24 nag. ana S24 non S24 moom boobu moom beneen affaire boobu moom franchement moom. c'était juste euh, voilà circonstanciel. Euh, une structure qui est morte de sa belle mort. S24 mais mais nous euh, son essence d'origine c'était quoi. <laughs> contre un troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Euh, euh, Abdoulaye Wade euh, Macky Sall na ma góor gi wax da jéggal contre une troisième candidature par mandat parce que mandat il faut ñu fal la ba pare sa mandat doog a démarrer. Ah. donc une troisième candidature bu Macky Sall. Macky Sall xëy xëy na leen ci njëkk bana. Mhm. demuma bokkuma donc du coup essence su F24 dafay xaw a wàññeeku. mais ils sont obligés de s'adapter ces leaders et coalitions de de de de partis de formation politique d'associations citoyennes sont maintenant obligés de s'adapter au contexte et bii dem nañu dem ba yaa ngi fàttali ko F24 je pense ci manifestation yi ñu mos a organisé yëpp benn lu wala ñaar yi ci res yëpp saa yu ñu jógee préfet ne leen teg leen ci suuf saa yu ñu jógee préfet ne leen teg leen ci suuf est-ce que bii tamit préfet dina fa jaar ak pas ñoom de façon ils disent ils vont apprécier bu fekkente ne préfet interdit na leen d'ailleurs sax peut-être sóoraale wuñ ko parce que c'est un principe également la ñuy demee on peut le reconnaître mais F24 dafa bëgg rebondir en fait. parce que ci diggante bi dafa am yu bëri yoo xam ne xew na fi. te mhm. moom bokkul. sóoraale wuñ leen ñoom waxuñu ci wala boog boole wuñ leen ci dara donc bii yoon je crois que ñoom dañu bëgg ñëwaat fàttali askan wi ne kuréel gaa ngi fi ba léegi mais kuréel googee. ñenn ñi ci bokk yëpp tey jii mais ku ci nekk yaa ngi sa cëggalu guy di dem di campagne. di def say activité di def say euh, euh, proximité wala say activité politique en tout ni nga ko déggee. parce que également y a des candidats. déclarés à la présidentielle. est-ce que ñooñu tal nañu. parce que pour F24 mën a dund pour man il faut les leaders de ces associations ou formations politiques yi ci bokk mais si si si un leader se fait représenter par exemple ban teneur lay am au sein du F24. merci Mamadou Mbodj day góorgóorlu doo de F24 man de loolu laa gis. mais Simon je suis très d'accord parce que en réalité c'est une stratégie de survie. c'est juste ça. parce que il faut qu'on reconnaisse que le f a été accordé un premier enterrement. Mm-hmm. Macky qui dit qu'il ne sera plus candidat. Mm-hmm. léegi combat bi libération des détenus politiques SOSP ñoom Moundiaye Cissé ils ont mm-hmm. pris les devants. oui. <laughs>

beneen mbir a ngi nii c'est quoi c'est que aujourd'hui leur démarche la libérer les détenus politiques d'accord mais le, la situation dans libérer les détenus politiques c'est quoi les Moundiaye Cissé ont déjà démarré parce qu'on a déjà personnes libérées est-ce que peut-être il ferait allusion à Ousmane Sonko qui n'est toujours pas encore libre ah, peut-être xam naa loolu la. il ne reste que Ousmane Sonko peut-être que c'est pour la libération de Ousmane. Sonko et de euh, Oustaz Assane Seck par exemple et de surtout surtout de Oustaz Assane Seck pourquoi. la ñu waxoon ci ay déglu mille soixante et un ou mais au moins c'est déjà une chose. mais ils sont pas tous des détenus euh, mais man sont euh, pas tous des yéen ñi ñaax waaw waaw yéen ñi ñaax en train de faire le dé de F24. mais vraiment. ah mais tamit. Hmm? F24 mais c'est une plateforme. de décès bi ah, non non je suis pas d'accord. mais plateforme muy Simon muy pour la libération des prisonniers. pour la libération des prisonniers. man personne n'a enterré non ils existent nouveau combat. c'est la libération des prisonniers. maintenant ils ont un nouveau combat. ils ont changé de paradigme. le but c'est de libérer les prisonniers. Ah, très bien merci beaucoup. Ah, la Sénélec woyal ko ba tey bi ñu cher ba tey si vous pensez que a. waaw xaaral commenté semaine passée non attends waaw d' accord comme tu parce que am nañ F24 élément ci biir. ci ma defee ci wax bariwul. non c' est ma ñam loolu rek ma ma ñam ah, euh, nañu ma message. yow xanaa yow yaay Asred FC Bunaama Bunaama yow yaay Asred FC. Bunaama Diouf nee na ñun ñoo leen di wéttali. xam nga loolu dafa neex ci xol ñoo xam ne mënuñu génne. mais li xew ci biti ñun ñoo leen koy wax. dëgg la dëgg la. ñoom ñi nekk Tamba. dëgg la ku ci Bunaama Diouf. dëgg la ñuy dégg donc ñu leen di wéttali loolu rek lu lu baax la. loolu lañu gis également ci mag bi nekk Thiès bu Mbour. ñoom Mor Seck ñoom Mor Seck ñoom Alassane Alassane Alassane Pall. Alassane euh, Ndiaye Alioune Pall Ndiaye ñoom ñëpp. donc euh, ñu leen di nuyu baax di leen bëgg ci fajar bi. bari ngeen loolu dañuy topp nag. Euh, docteur Diop monsieur le maire bu Mbao. Hmm? docteur Diop ah Diop Diop Diop. Diop docteur Diop. docteur Diop raffiné. docteur hmm. ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dem. ah. bi. câble bi. câble bi da ngay maas. kuy maas. ah. ma taxaw fii arrêt la wala du arrêt. <laughs> dama altu altu la altu altu. ayca yéen a kaay groupe des moo yëg ci tribune bi. Mm. tey kan moo yëg ci tribune bi. bu gàññee dañuy.